na nga def bun xataa ba nga suy bu waaw eh, eh, eh. na nga def bàyyi ak sant yàlla bu a baax abiti ñu lay ñu ngi lay fay ñu ngi rafet bu baax te ay jërëjëf su koy papa puut laa jóge dag ne dag ne su koy te problème yi réew mi toj na mbaay yàgg na mbaay kenn mosut a gis lu ne mel dëgg la mbaay <laughs> ñu ne géwélee dañ leen di <laughs> kat dañ lay dugal ñu def rëbët mën a yem ñu ne géwél du fa laal suuf ca guy ya ca guy ya su koy terrain laa fa yoroon jaay naa ko ah pour dag ne doy na su koy na nga def mbaay ah yow sa ñëw papa que li nga. waaw xam nga da nga fay gëj sax nag. gëj fi gëj nga fi gëj nga ci ci. Moustapha Niass laa dajal pono ba kër we a dem. nga jiitu ko ma ko. <laughs> Jakarta laa jël bàyyi. lan Jakarta. sabaay la jël garaam bu booy bu ñaan kenn su kaa ah kañ moom la. <laughs> borom jakarta bi wàcce ma ne ma def naa ko ngir addiyee sukkaa waaye nag saa jógoo tax ma yóbbu la su koy na def papa nuyu naa baa ngay dox wan boutique dédicace ba ca Thiès ñu ngi tëj dëkk bi laaj ma wa papa hmm. euh, mën ka xanaa mën ngaa laaj sa baay mbaay waa papa ah. yow bi nga yëgee mbirum euh, put bi waaw nan nga ko dundee jaaxle yàq sax en tant que bat géwél Thiès waa Thiès xam la mhm. euh, préfet xam la mhm. euh, gouverneur xam la mhm. maire bi xam la nga leen ngay doon nga nekk seen géwél waaw bi li amee nan nga def waa dama déglu ci rajo bi déglu émission boobu ñuy wax jomet waaw suy bu ànd ci ak Sa Ndiogou ak Machkeen ak maa jigéen mhm. nu ne pour dag me dañ ne duñ foofu suulu géwél mhm. saa njugu laa xam ne nag torop kontar na ma wu géwél yëpp ba mu des man waaw dëgg loolu moom waaw bu ne woon sax géwél yi ñëw leen mhm. ma ne kon ca la ma boole waaye dana alaaji Mansour Mbay wëlbatiku ne xaadim sàmb wëlbatiku ne mbay péex ngay déglu ba tey wëlbatiku ci ëllëg sa. waaw mu dikk daal di ne Farba Ngom. tudd la ba tey. tudd ma ak ni nga nekkee xaritam. looloo ma jaaxal nag. su koy. Mhm. réew mii bisu keroog danoo waaru ma ne leen yéen ginnaaw yéen a ngi suul géer réew mi umu te ngeen a suul géer yi te suul géwél <laughs> nee neen géwél day day um dëkk ba. waaw. ma ne leen yéen a ngi suul géer ñi mhm. dëkk bi siiwut kenn xamu ko pour dag ne mu ne la fu mu ne da ngay dem ba biir pour dag ne mhm. di laaj ndax fi pour dag ne ñaan la koy foofu mhm. man leen comme que dëkk bi moom nii la toll waaye waaye kon te ngeen a sulli géer ñi dëgg la mbaay géwél mën ta ñàkk ci réew déedéet sa maam def lu baax bëgg nga géwél dëgg la mbaay dégg naa sax bi affaire yi amee yow yaa ngi fa woon mais da ne doo géwél waaw ah, ah, dama ne géer laa ah. ah mbaay gi dama koo soppi <laughs> nan mbay mbësu mbay mbësu waaw am na géej gi yu bari boobu da ngaa a xam nu mu demee ci laa ne mbay laa sant waaw boobu da ngaa bëgg xam nu mu demee du mbaay mbay la mhm. ñu ne ma yaay bàyyi sukkaa sukkaa ne ne géwél la ma ne déet déet mbay la daa xamut li mu doon man maa xam li mu doon man mi bàyyam waaw tax day toog ci télé bi di sàmbay mbayaan rek waaye du géwél la <laughs> gu set rek lépp la ngir leeral. ngir leeral la wala da nga bëggoon a xam nan la demee exactement. waaw waaw vérifier rek. information dañ koy vérifier. waaw nan lañ ko wax in jaaxum. et in jaakum. in jaakum. faasixun bi nabayin bi nabayin fatabayin waaw da ngay dem gëstu ji. waaw xool. ndeysaan. seetlu. bu xibaar ñëwee da koy dem leerlu ji. dëgg la dama koo leerlu du ma ko digg ci ñii rek nga xam ne leen neex wax ci rajo ah, euh, dëgg la. <laughs> naan maa ngay dem di daal di yat laa yoroon dem. waaw pour xeex yi. waaye ma demee it ne géwél yi ay waleen nañ leen dem géwél yi rasu géwél du xeex ñu ne ñu ne doon xeex géwél du xeex nag def sa maam war a xeex dëgg la dëgg la wax dëgg yàlla nañ leen jël fetal yi waaye déet waaye mbaay yow yow xam nga pare naa lu baax pour joxe bii pour joxe ba dee sa boobu bu ko joxe dañ koo soxla oui may dem ci la ma njuufa woon ne ma foo jëm mën a ko kii laay joxe ji mu ne ma fii la laa togg dama ne kon bàyyi suba ma dem. problème mooy bu ngeen ko joxoon day gën a métti parce que dañu ne ajaat tëgg yéen naa ne foofu mu ne ma guy de ci guy ya lañ ñuy aj ñun ñëpp. ndax géwél yaa ngi ci guy ndax ñu ne mbaayee na mbaayee na géey guur guy kala ñu ne mbayee na mbayee na guy gee guy ñana su koy ñu pour dag ne sonn nañ ngelaw li di la upp imaginer rek mag mu ñu aj ca guy <laughs> ay yàlla fi yàgg tawee amiin yaa rabbi amiin yaa rabbi namoon nan la eh, namoon nan ko moom wax dëgg yaa waroon naa ñëw ci discours discours président mais xanaa da nga fi ñëwaat waaw waaw discours président waaw boo woon nga ci waaw parce que kii dina heure bi temps wax na waaw waaye boolewu ci géwél yi dëgg la boolewu ci ah. nanuy xoolal parce que nag buy wax mhm. ak li mu nu war a defal mhm. te moom ni ko mu géwél yi wëree na géwél yi waxal géwél yi waaw. terrain bi bu ñu koy ubbi waaw walaay. ñu ngi seet ma te maa ma waroon na ñëw ngir tëgg rëngin ngin rëngin. walaay azim tëjal tëjal walaay azim. loolooy bakku ndakaaru. Mhm. gin gin rëng gin gin rëng. gin gin rëstëgin rëstëgin. wala ndaqataa. Eh. wala ndaqataa gi gin gi gin. wala mbaqas bi gin wala mbaqas bi gin bii ndaat saay jërëjëf ah, Mbaye jërëjëf waaw jërëjëf bu euh, <laughs> nekk ko El Hadj Mamoun yaakaar naa ni nam mën nañ ko euh, ndax gëj na fi loolu donc dañ koy dara bu ñu jógee ba tey ba Cees dañuy daal di dal dañuy yem ba tey <laughs> Idrissa Seck ndaanoo Kajoor Idi nuyu nañ la. maaleykum salaam <laughs> maa ngi lay nuyu. maa ngi lay waaw di kontaan ci dalal bi nga ma dalal futur premier ministre di la nuyu di la mhm. ziar di nuyu sénégalais yi nga xam ne ñi ngi ñuy teewlu mhm. di la déglu nga laaj ngir ma euh, tontu waa Idi dañ la déggoon nag nga ni 2022 bi na ngay bàyyi politique xanaa loolu ngay ñëw pour wax ci ko tey euh, di wax ni dama ni dama ni yow yaa ni woon. 2022. Euh, waaw ngay bàyyi politique te deux mille ñu ngi ci 2022. waaw xam nga tey la 4 janvier 2022 boo ko déggee. ngir laaj réew mi laa wax. politique nga wax ni lépp ngay bàyyi. déet laaj réew mi bokkut ak bàyyi politique. Ah! waaw laaj réew mi parce que politique même boo nee damay bàyyi yaa ngi politique. ndaxte politique c'est politique politologue politique. boo seetee bàttab politique dafa am lu bari lu c'est un peu philosophique parce que tout temps demandant les gens de laisser la politique tu es de faire un politique ah. pour bàyyiloo nit ñi politique faw nga politique ngir wan leen yoon woo ko ba kon kenn mënut a bàyyi politique kon bu ma waxee da ngay hmm. na war a am dégg-dégg Mm. waaye nag bu sa dégg-dégg xóotut doo mën a def lu dul di dégg rekk wax jiy jóg waaye la lalu ca suufas wax sa loolu faw nga nekk un philosophe ngir mën a xam la lalu ca suuf mm. ndaxte politique wala nga bàyyi ko noo mën a bàyyi loo mënta bàyyi mm-hmm. loo mënta bàyyi mënoo ko bàyyi kon boo nee dama koy bàyyi bàyyiwoo ko ndax mënoo koo bàyyi ba di ko bàyyi leer na. Ah. lan laa wax léegi yow lu tax bëggoo bàyyi. du caagi ni le fait nga naan ma lu tax bëggoo bàyyi. waaw parce que yaa ko wax ba pare nag. wala réerum dafa mel ni ni ma la mën a waxee. kii dund. daldi ne weer sàngam wala waxtu sàngam dootuma nooyi. ci jamono jim koy wax mi ngi nooyi. te buñ ca tollee noyyi gaa ngay noyyi muy noyyi parce que munta bàyyi noyyi ga bu ko bàyyee mooy bawoo na fi mhm. noyyi gi mooy politique lu waay mënta ba mënoo ko ba même ñi ne ba nañ ko ba wuñu ko ñang ak ay yow kii nag bu amoon kii dafa ma koy tegal ma ne dar ta teg maa ko waxoon waaye ba ma koy wax xaw ma woon dama ko doon wax c'est philosophique ah waaw la ma doon wax lu philosophie la. Euh, jar ngeen koy wër di wër vidéo wërkatu katu bi yàlla na nga fi play vidéo yooyu bon ya boobu fee bu boobaa nga xam ni dangay ngay mën rek yàlla na nga fa play loo xam ni boo ko playee réew mi dañ ci yow. palaykat bu mag bi bëgg a palay di wër di boobu ba nëgën ci portable bi ngir bëgg maa dugal yàlla na nga palay vidéo bi fekk bu la asan defaree envoyé la nga palay ko yàqu yàqu ci wala yow yow dama premier ministre bi ma ne soxna si politique ma mais yow yow yaa ngi politique ngir ma bàyyi politique waaw yërëm kii di yër vidéo yi di la yëral moom la kee. bu yeboo bàyyi ma dugg ci bi ma xool dugg ci lan. bés boo fi playé loo xam ni yow samit say portable del play playal. bés bu ngeen fi ju waaw ma ne man sax taxal ma ñëw dem temps bi jeex. des na une minute. des na xaaral xaaral boobu tàggoo ko. aja loolu d'accord yàlla merci beaucoup Adjaratou donc euh, di leen jox rendez-vous suba incha allahu rabbi euh, joyeux anniversaire par anticipation euh, ki nga xam ne rek moo di madame Kébé Ndiougo Ali Bambi suba la anniversaire am donc ñu ngi koy wax joyeux anniversaire happy birthday to you loo dund doy madame kebe Ndiougo Ali borom njaxara sax xaw ma sax mbay ah borom madame bo mooy madame Bonheur kon happy birthday to you ma ma ay ayca ñu daal di souhaiter heureux ménage à Kia Kia nag madam Niang Balo yal na la sëy bi jik yal na yàlla barkel ko sunu borom may leen njaboot yow ak monsieur Niang moom Kia ñaareel xaritu jëkkëram ñu ngi lay ñaanal sëy bu barkeel di souhaiter également à Bambi gaaw comme suba la un très joyeux